dimanche 24 novembre 2024 ci dëkk bu sell bii di Touba ministre bu yor wàllu njàng mi di Moustapha Guirassy amaloon fii tukki nemmeeku ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ci ndigalu ay kilifaam di son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ak monsieur le premier ministre Ousmane Sonko mu ñëwoon ci xalif bi nag ngir sàkku ci moom ndigal ak ay ñaan ci bis bi nga xam ne dañ koo fas yéene taxawal muy bisub daara di bisub alxuraan ñu koy amalee ci ndakaaru mu ñëwoon nag ànd ak sëriñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite daara di kawe ji di université ci Touba ak soxna maam Xari Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne moo jiite fondation éducation pour tous à Touba. tey nag mu ñëwoon fii ci ndigalul ay kilifaam ngir di la yëgal si jataay bu am solo boo xam ne sab jataay la ndax jataay bu alxuraanul karim la. jotaay bu ñu terale ñooñ quraan alquran la jotaayu sëriñ daara yi la te kon yaay sëriñ daara bu mag bi ndax alquran mooy alali sëriñ bi mooy léppam daaw ñu defoon ko mu doonoon jotaay bu am solo daje woon ak mboolem sëriñ daara yi waxtaan ak ñoom déglu leen ñu wax seen lañ bëgg ñu am digge yu ñu fa digge woon yàlla dogal nag ñu dem ba waxtu woowu di dellusiwaat mu ne bala ñoo tàmbali si boobu bis boobu dana def ni nga xam ne noonu la defoon daaw boobu Cheikh Oumar Anne moo fi nekkoon ñëwoon fii yëgal si la ko waxoon la ko nga taxaw ci taxawaay yéen ci taxaw te yàlla dogal moom mu yor liggéey boobu yi mu ne nag day ñëw yëgal la ko sàkku ci ndigal sàkku ñaan ci ndigalul ay kilifaam ndax alxuraan daal képp ku koy teral wala ñooñu alxuraan yaa ci jiitu waaye yow la koy defal ndax ñooy sa njaboot képp kuy tagal teral boroom xam-xam wala muy teral xam-xam day mel ne yow la cay wuutu ndax moo loolu mooy sab tool boo xam ne ci ngay xëy waxtu wu ne ñu lay seedeel nag moom ak cant ci taxawaay yooyu ma wax yi jiitu woon ci ànd ak noonu ci liggéey bi waaye bi yàlla dogalee ñu dénk ko liggéey bi itam ci ndigalul ay kilifaam yitte yu am solo muy taxawaay boo doon bu bokkoon ci wàccaay wu njëkk woow yi muy li ñu tuddee école Touba ngir daa école yi fi nekk yëpp ñu nos ko waaye seet li nga xam ne manqué woon na te mënu cee ñàkk ñu dugal ko ci mu njàngum diine ndax dëkk bi moom léppam diine la doom Sénégal yi it yàlla dafa dogal ñuy niti diine kon ku leen di jàngal diine mënu caa ñàkk wàll ñoo am lu ñu waajaloon nag ci dëkk bi ci seen liggéey bu màgg bii mu aju ci moom waaye da ko daal di def nañ ko bëggee muy joxe ci ndigal wax ne nañ ko jëfandikoo te mboolem école yi na ci biir Touba nañ jëfandikoo loolu waaye ñi nga xam ne ñoo fi nekkal fi li mu jiite itam nekkal fi gouvernement bi yor wàllu njàng mi nañ ko ànd ak ñun ñu taxaw ci taxawaay ba ni nga ko bëggee ñu mën koo jëfe noonu te loolu njariñul askan wi rek la te waajtaay la woo xam ne jàpp nañ ne benn gox moomu ko benn dëkk moomu ko waaye askanu Sénégal ak ko soxla waajtaay bi loolu lañ ci séddoo woon dañoo càmbar njàng mi xool li ci manqué te mënu cee ñàkk ñu fexe kem kàttan dugal ko ca waaye nag di ko gën di yokk di ko gën di yaatal di ko gën di dëgëral ba nga xam ne daal dana mel na mu war a mel loolu daal moo doon ay tànkam tey. bi suñu tànk muy euh, président de la république yebal ñu fi euh, ak premier ministre am ci tur gouvernement bi euh, bis boobu ni ko sëñ bi waxee sànq mu nekk bisu alxuraan bisu lislaam te sant suñu boroom bi état wu Sénégal demee bu gis ni école ni mu meloon nekkul di defar suñuy doom. te su yàggee ñu jàpp école googu rek xëy na li mu yàq euh, dina rëy lool te xëy na mu nekk ay rëccu-rëccu ba tey ji alhamdulilah mu nekk troisième édition ñu bëgg jox jëmm lislaam jox jëmma jëmmal gën a jëmmal lislaam jëmmal alxuraan jëmmal euh, daara yi moo tax mu nekk euh, bis boo xam ni daara yaa ko moom wante dafay nekk point de départ bu am solo tàmbali bu am solo ubbeeku bu am solo moo tax Euh, état bi euh, def euh, lu mel noonu su ko defee tamit légitimité bi yéen a ko koy may. moo tax bis boobu ñëw fii sàkku ci yéen ay ñaan ak ndimbal sàkku ci yéen ngeen jëmmal bis boobu. xam naa ni sa jot doo ko am xam naa ni yan bi diis na lool wante say représentant ak ñoo xam ni mën nga leen fa yebal. ñu xam ni Touba teew na ñu xam ni teew ngeen fa. ndaxte kat. Euh, réew mi yéen a ko yor réew mi kenn mënu ko defar te jaarul ci yéen euh, te école foo xam ne fa la ñuy tabaxee doomu aadama euh, lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la te xale yi dañ leen war a yar école nu mu mënti dem maternelle ba ci kaw war nañu jàng diine war nañu fonk diine te daara yi nag ñoom dañu nekk ci taxawaay boo xam ni ñooy euh, yar di yar ruu euh, di yar tamit xelu nit di yar jëmmam donc daara yi dafa am taxawaay bu am solo boo xam ne am nañ ko wante euh, daara joo xam ne tamit dafa war ubbeeku ndax àdduna day dox jamono day dox kon tey jii Euh, bërëb bi ñu nekkoon ñoom ñoo war a jël seen place ñoom ñoo war a euh, toog seen place ñoom ñoo war a yor système éducatif bi daara dañ fi war a dañu war jël seen place bu baax a baax a baax kon bis boobu président ci boppam day ñëw ak gouvernement bi euh, ñu doon sàkku ci kilifa diine yi borom daara yi ñu mu nekk occasion boo xam ne nañu waxtaan ak chef de l'État waxtaan ak gouvernement am lépp loo xam ni mbébitu borom daara yi la mu ñu am yaakaar ni bis boobu dina mën a saafarawu ndaxte problème mu tool dinañ koy wax ku am daara rek am nga problème mu tool ku am daara am nga problème pour liggéey formation professionnelle bis boobu ñooñu ñëpp dañu leen bëgg indi pour ñu dégg euh, lan mooy mbébétu borom daara yi naka lañ leen di mën a jàppale pour liggéey gi nga gën a mën a jëm kanam kon suñ bi ñëw sàkkuwaat ñaan ci yéen ndimbal ci yéen tàllal suñ loxo ngeen jëmmal bis boobu eh, ndaxte bisu lislaam la bisu alxuraan la bisu daara la. jërëjëf merci jërëjëf dégg ngeen kàddu yi bu baax a baax a baax a baax xam nañ am nañ mbégte mu rëy te itam bu baax a baax eh, li bëgg te mën nu ko ñàkk it sa jotaay bi tax na xel gën cee daal boobu nga eh, bis bu la bu yaatu njëriñ la kon incha allah sëñ Amal dégg na ko noonu ni nga ko waxee rek daan ko defee ni nga noo bëgg nu ko nag daan ko ci taxawee daan ko ànd ak yéen incha allah loolu moom fa tabarakallahu su ko seet na guy waaw na ni nga baax a baax baax fekk na nu xam taxawaay bi sax ba noppi. waaye nag euh, euh, euh, nañ ko bu baax sunu yaakaar maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi